Sénégal dafa am nuñ wara war nan ngeen war a mun a tooge ngeen ne lislaam moo gën ci diini jël ajjana jox ko julit chrétien ñu def leen yu bon yoo xam ne mérito sax ñu ñaanal leen ba pare wóor na ma ne ku ci amoon xariti jullit ak xariti chrétien chrétien ba nga gën a wóor dem leen ci istoiru Sénégal bi indépendance amee ba tey crime yi gën a rëy te gën a ñaaw ñiy woote woo jullit ñoo ko def ci réew mi dem leen li may wax amul da mën a fenn am loolu amu ci ay record laa leen di wax ay fee lay expliqué di ci teg baram kenn du weddi feebar yi gën a wàll ci wàllum sëy muy appétit muy sida muy herpes jullit yee ko gën te ci sëy képp nga ko mën a am feebari jàngoro sëy ci jullit yi la ëppee ba tey waxaguma li ma wax de ci gouvernement Sénégal ñi ñu tuumaal xaalis yi gën a rëy ñu sàcc ko ci jullit yi la ëppee bi gouvernement Sénégal commencé ba tey ñu tuumaal nit sàcc ay milliards kooku jullit la bu tudd Abdou Karim jàmbu sell bi mu ngi tudd Ababacar ki gën a gëm yonantu bu tudd noonu am na turu yonantu sallallahu alayhi ay jullit wax ji neexut nag li ko def mooy dëgg moo dul neex euh, bi senegal commencé ba tey benn njiit rekk leen mësa am ku dul jullit waaye ñu ci des yëpp jullit lañu te ñun jullit ñooy taxaw xas leen xeeb leen ŋàññi leen ne baaxul ba tey nag ñu ne lislaam a gën lu dul lislaam Nous am chrétien nekk ci dëkk bi Bala indépendance ba tey 95% musulmans, donc 5% est chrétiens que moom musul 4%. yokk li bon fenkat fen chrétiens. donc amul benn jullit bu bàyyi chrétien dem ci l'islam loolu amul Sénégal mu ngi te xam ngeen ne chrétien moo gën a gudd fan jullit <laughs> nit ñëpp a ngi xool fii koo fi laaj sa maam wala sa sa yaayam deewut baayam deewut maamam dee na da ngay gis cinq génération chrétien toog xam nga lu tax mooy li ma suma yaay di wax I mind my business and drink lot of water dañuy toppatoo seen affaire di naan ndox mu bari ñun nag bu nekkul di sëy nekkuñ di fen jëwuñ toppuñ di kaa ñu ngay ñaanaatu di bëgg lu yomb léegi chrétien yooyu nekk ci réew mi nan leen leen di convaincre convaincre leen que ñun ñoo am diina ji bi nga xamee ne jullit yi seen bopp ñoom jubooguñ ba tey bala nga koo xam wala nga jéppi jullit ñi weeru koor jot tey guddi Maodo la ñu wax a wax a wax ba fenal Maodo fen wu rëy su subaa ñu ne guddi sëñ Touba la kële na ko <laughs> démb sa fenni démb yi amul suukar man damay fen ba lem ñu ne guddi baay la dégg naa benn waaye mu wax loo xam ne dama am kersa mu ne Baay Ñas am na lu war a toll quatre cent millions ci àddina bi mu ne Nigéria rek am na fa quarante millions taalibe ma ne loolu saaga gënu koo rëy li tax mooy Cheikh Mouhamadou Mahi Cissé kan mooy baayam xutbu Seyda Aliou Cissé kuy yaayam xutbu Seyda Fatoumata Zahra kuy maamam xutbu Baye Niass teg fond monétaire fond Medina bay fond Medina bay atti yalla ñenti téeméeri talibé yu gëm mënu ñu am 1 milliard bu wax ja doone deug bay amna 400 millions kon gatcha amna ci talibé mënu mënuñoo dajalé 1 milliard ku bay Niass jaralul dajalé 1 milliard pendant 1 an boone bay nga bëgg Cheikh Ahmed mune da ngay fen waxo deug kon ñun ci suñ biir ahlu tasawuf seen biir jubawuñ diggante sunna ak tasawuf ci biir l'islam jubawuñ xool leen ma wax leen lu ndaw rek ngeen bàyyi ko xel ci man suma wax ji nga xam ne wax naa ko te jéggalu sénégalais te dara nekku ci bala ngeen a xam ne dara nekku ci ci kanam la ëllëg nit ñu bari dinañ wax li ma wax dafa fekk rek ne dama sut génération bi lu bari dafa fekk na ni may oyofale wax yi xamewuñ ko noonu mais su ma wax boo ko toppee ba ci biir danga cay teg sa baaraam man dafa dama dañu jàpp ne taalibe Baay la bien vrai que man ootewuma loolu man matuma bàyyi Ñas taalibe moom Baay taalibeem bi tudd Maulana Alhaji Cheikh Omar Touré moo am taalibe bu tudd Cheikh Ahmed Tidiane Touré man taalibe kooku la waaye duma taalibe Baay jàpp gi ñu jàpp ne taalibe Baay laa maarifa laay woote am ñu ci fiir fiir gi ñu ci fiir moo waral suma problème bi ñan nga ci dégg ñu gën cee bëri Mame gi Gueye fu mu bokk Tiwaawan juge ba Mamadou Seck fu mu bokk Tiwaawan Makhtar Sarr fu mu bokk Tiwaawan oustaz Makhtar Sylla bi muy dendal fu mu bokk Tiwaawan so setané malikiyati bi ak asfiya télé yoy nga xamné dama len bëgg di len seetaan ñom ñëpp ci man len doon wax semaine boobu fàtte né ne tiijaan la fàtte né ne jullit la fàtte né ne njuumte mën na am waye ñu ngi xeex ci turu né boy yi dañu réew dañu ñëw naan yenen xam-xam té ñun xamuñ lu ñuy woté suñ dara jaa ngi neen ko xeex loolu len ci jublu suma bëggona wax waté dama koy wax waxuma loolu waxna jeex tudduma Maodo tudduma njabootam ay nit laa tudd ñooñu lay wax ku jële wax ji fii yóbbu ko Tiwaawoon sa affaire la yow mi ko fa yóbbu mais man waxuma loolu am na sañ-sañ bi am na fit bi capable naa wax ko mais nag ay mag yu mànn doon dara ci yàlla te tudduñ la taluñ la boo leen genre wut fóonoo seen loxo bàyyi leen seen bopp wax dafay leer ñi ma tudd laa wax loolu la xeex. taalibe ñi soi-disant yeneen taalibe bàyyi ànd ak ñoom nga dégg ki naan day rusloo bàyyi day nàngam su ma yaay ak su ma bu ñu takkoo woon fukki at ak juróom benn mënuñoo rusloo ku lu daq ci baay waxuma la ak bàyyi loolu mooy dëgg-dëgg réeree bàyyi ñis kon fen yi nga xam ne mu ngi ci réew mi fekk génnu dëgg du am